équipe Ouganda baa ngi noonu ñooñu la war a dajanteel di ah, li ma jaaxal daal mooy xale yi am nañu un bon coup de rein ñi de ku ñu dribblé ah tubarkalla kon gars yi ñu noonu namoon nañu leen gis ngeen fu nu dooree dem Ouganda ak yéen wan leen réew mi Sénégal war a dajanteel aljuma ji ci boori Disney Fair ñooñu mooy ñooñu ñooy ñan ñu fas yéene ko nag waxtaane tey ji ci émission bi ci ëttu ëttu mag wi nga xam ne tubarkalla du ma ci wéet benn yoon da ci ànd sama ñaari jaam astafurlah sama sama ñaari copain ak sama ñaari copine ey mbay coach waaw faal de nga sant mm. te faal de ak njaaj mm. xaa jënd buru jox leen rek ngeen reer de ah, ñun de xam nga tur yàlla ah, may wax sa dibi sa dibi ci roq bi de <laughs> coach sama taalib loolu yàq dal alhamdulilah bu baax Abou Talib Fall entraîneur bu mag bi nga xam ne moom mu ngi ci réew mi duñ ko présenté kenn ñëpp xam nañ ko ko suñu am mbégte bu baax dala dalal ci ci maximum ji dalal jàmm ci kër gi waaw man it maay am mbégte teew fii di la remercier ci invitation bi mhm. di nuyu mbaar ak euh, sama doom Baye tabarkalla waaw j'espère que euh, ñooy ñaan tamit suba yàlla defal ñu ndam amin amin amin comme que soxla nañ ko trop amin yal nañ ci yàlla def jàmm daal amin mais yéen gis ngeen ni ñuy fubal waa gis nga ñu ngi nuyu nag téléspectateur yi ñuy seetaan. déggal lii man de su naan soñu naa trop ci téléphone bi. am émission bi amul démb amul barki démb. waaw nit ñi di ma ah, ana mag ma leen danoo grève émission préférée di ko xaar. danoo grève woon. ñu ngi leen di nuyu leen dalal ci seen émission préférée maximum. tubarkaar ñëpp di ko xaar macha allah. yéen nii ngeen def. Hmm, nii lañ def. ki kana. man man man. ki kana muy naa nga def. waaw maa ngi nii rek Diagne. di la namm rek. waaw ah, wallaay maa la raw. waaw kon neex na nuyu naa la jaar naa boori cité bi yaa ngi doxantu noonu ci tëri espéré seen la mais génnulu. ah xam nga sama kër. dama ragaloon ñëw. lu tax dama fàgg. <laughs> waaw gëj ba tey ñëwoo sama kër ñaaw na. ñaaw moom 6 mois. mais c'est pas normal. ah non c'est pas normal ak ni ma mel ci yow. man nag fa ma def marche. Hmm. ba ah. ki laay war a def autorisation de marche. Ah. pour ñu libérer tuuti. ah franchement. da koy jar ah, nuyu naa la Diagne nuyu naa téléspectateurs yi ñu setaan mm. nuyu gaynde yi Égypte nuyu taskati xibaar yi fa nekk këcc <laughs> ñu ngi lay nuyu sa un plaisir dajawaat ak yow gëj nañu gisee mm. Mm. Adja nuyu naa la ma chérie waaw ah, ah, kay ñu ngi dalal bu baax doomu bàyyi fay naa yi ma paree damay créer benn métier damay créer benn agence déedéet waay mm-hmm. xam nga loolu fii laa ko gisewoon ci tubaab yi gis nga ko Sénégal fa ma créé ko. amu fi amu fi non après dinaa ko teg après <laughs> agence naa. su ko waxee gars yi dañ koy ma ko waxee nii gars yi dem balaa may génn fii ñu dem apix enregistré ko <laughs> loolu lay bañ loolu lay bañ loolu lay mhm. alors ñu am mbégte loolu tubarkàlla nuyu leen am mbégte ànd ak yéen mais tey nag ñu bëgg daal def waxtaan bu bu gën a leer pour nu wane équipe bi ñuy footballeur Ouganda parce que bëri na lu ñu dégg Ouganda Ouganda mais xamuñu leen lu bëri xamuñu su ñoom lu bëri gis ngeen léegi ñu tegee seen. seen seen réew gis nga réew maa ngi noonu xolal mhm. réew maa ngi noonu. li euh, pastel la am lu mu doon. waaw yooyu ay fataay la xale yi tamit am na Sénégal dawal pëna. Mhm. xoolal buuju. waaw yii yëpp am na fi mais ñoom. tubarkàlla yii mooy seen affaire te ñoom dañu nekk ay nit ñoo xam dañu nekk en altitude. Mhm. maanaam dañoo dëkkee ci ay montagnes. waaw donc du ñu du ñu gaaw a sonn. waa ay nit la ñoo xam ne physiquement xol bi day rëy xol bi dafay rëy dañuy dañuy dañuy mën a dañuy mën a dékku lu bëri. donc di population boo xam ne ñoom itam lu ëpp si ñoom anglais la ñuy làkk ak seen ay dialecte euh, bëri na aussi euh, réew ma euh, ñoo xam ne ay ay cartel lañu moo waral korñaaña yooyu ngeen seen gars yi di leen kar mhm. pour brosser leen dibi leen <laughs> ah <laughs> wax nga leen gisoo korñaaña yi noonu kon pour jox ko ñoom sama mbokk yi ñoom sors yi ak ñoom mhm. si Youssou waaw mhm. ah, bon nag bi dina baax ci Youssou mu ngi noonu gis nga kii tam mooy artisanat yi dañoo bëgg daal leen réew ma ngeen xam ne tubaarkàlla réew la moo xam ni ay jàmbaar fàq tëddal ay nit ñu ñuul ñu ñoo xam ne ñoo gëm seen bopp. du ñu daw du ñu daay du ñu dellu ginnaaw. te réew la moo xam ne aussi tourisme ba surtout tourisme euh, sovage bi. Mm. am na foofu doole parce que dañu am ay ay réserve naturelle. ok donc loolu bokk na si li nga xam ne dafay dafay euh, dundal dundal seen seen réew. mais aussi athlétisme aussi surtout si euh, distance yu guddi yi bokk nañ si ñoo xam ne aussi ñoom. am na nañ ci euh, am nañ ci am nañ ci taxawaay. ay marathoniens waaw ay marathoniens lañu quoi kon ñoom ñoom Kenya ñoom Éthiopie. souvent sax ñoom dëkk yooyu daw seen seen seen daw seen yëfa daal waaw moo tax ñun suba. Mhm. foog naa ne ñun tam foog ñu namm suñu ay jaasi parce que daw bi dina mel ne tulleeg man. waaw ah, la. Mm. parce que boo xoolee match yi joué yi yëpp euh, sur le plan athlétique équipe la boo xam ne dañuy daw lu bëri. Mhm. waaw donc loolu tamit il faut ñu mën ko dékku suba. Mhm. waaw. ndax ñun mën nañu daw coach non dañuy daw loolu liggéey la rek te gars yi am nañ xarañte boo xam ne léegi loolu dañ koy liggéey du yomb la mhm. boo gisee ñoom ñëpp a ngi takk GPS donc loolu yëpp dañ koy contrôler GPS mooy yooyu ñu takk seen dënn takk gilet bi donc da xam ñaata ñaata kilomètre de jour bi daw ak yooyu yëpp. écoute tojal affaire xam ko parce damay gis léeg man xaw ma dara. mooy seen baay. waaw damay gis gars yi mel na ñu takk ay soutien gorge nii. waaw yooyu du soutien gorge. non du soutien gorge boobu. ah lu loolu. jour bu nekk c'est individuel dañ lay contrôler ci mhm. mooy feeñ sax mais am na yoo xam ni dañ koy dugal ci chaussette yi. ci biir chaussée bi yëpp ay puces yu ndaw la pour ñu mën a xam daal ñaata ngay daw ak ñoom seen ah, nombre de kilomètres par exemple tey jii mën nañu soxla intensité boo xam ni bon yow avant la avant l'entraînement dañ la koy wax avant exercice bi mhm. donc yow boo suivre lool rek après préparer physique bu récupérer puces yëpp GPS yi boo xoolee sa bos dina xam ne yow tey liggéeyoo ah. mu wàcce war la si terrain bi nga dellu si waat ah, waaw ne la kontaanuma ci yow nga defaat affaire. Mm. waaw waaw gis nga yow Pape Samba am nga yooyu gars yi takk nii takk yi takk ci yooyu ñuy takk seen dënn yi nii mel na nu kii. nu mm. takk ba dëgër wala Alfred wér na. Mm-hmm. Alfred wér na. waaw moo feebar ba léegi si ñoom. non ah. Sabali tamit coach bi wax na ni tane na. ak Salif Sané également coach bi wax na ni tane na donc ñëpp ñëwaat nañu. mais est-ce que Salif dina football suba nga yaakaar wala day gàtt. Salif ah yaakaar na nga entorse moom la ñu wax noonu. waaw waaw te cheville dafa ah. fragile. waaw ah, dafa fragile de. Mm, mm. léegi sa njaago ba ca grand yof nag. njaago bi ñibbi na ñibbi na moom. njaago bi ñibbi na Paris xam nga moom il était parti pour être le l'un des meilleurs portiers. de cette CAN franchement. Mm. première fois mais nag mais nag malal li ñu gaañule ren ci tañeer bi. bari na ñenn ñi sax dem nañ bay ñaaw xel naan est <laughs> xonjom yi la parce que quand même c'était des blessures yoo xamante ni Salif Sané par exemple diggante prix ba dip nga gaañu mm. gaañu waaw euh, tu es out pour à quinze jours mm. euh, moom pratiquement euh, peut-être dix minutes la joué ci premier match bi depuis lors il était out mm-hmm. gis nañ Alfred moom également après premier match am dafa gaañu Sabali pareil coach gaañu gaañu bëri na ah mais loolu lool moom nañ ko teg ci cadre football rek. Mm. xam ne tamit euh, sport de contact la. Mm. bon sa normal jour yi gaañu am yenn traumatisme yeeg yooyu. Mm-hmm. donc buñ ko dugalee ci beneen aspect rek day xaw a compliqué. Mm-hmm. donc nañ nañ jëm ci. kon nañ rafet njort rek nañ rafet njort waaw na coach comme yéen wax yi da ngeen koy daw. am euh, problème dañu may xaalis coach. Hmm? dañu risque coach. ah li ma gis table euh, ah, bi moom macha allah. surtout bële moom zéro yi bëri na trop. ah bii zéro bëri bi moom moo ko war a jox déet mhm. na war na war na ma mën a. tubaarkalla comme que daa xew. daa am ji grand théâtre mhm. gars yi match bi du yàq benn yoon grand théâtre ndax foofa Abba teg na écran yu bëri. Mhm. ngeen teel a dem du ngeen buuxante daal di jël seen biir toog seetaan match bi ngeen supporté foofu mu nekk fan zone ngeen toog reetaan Sénégal gagné ngeen pëtox ngeen buuxuxlu bu ngeen buuxuxloo ngeen dugg grand théâtre mhm. abaa defanteeg yéen tubarkal mhm. ah koppar yaa ngi ma maye million baa ngi nii de brique ah Sénégal su gagné nag dañ koy maye waaw Sénégal man tey moom ku hmm? wax pronostic waaw ñu bind sa tur nga gagné ko mhm. bu subaa Pape Cissé dina la jox un million bi mais en attendant les événements. comme yaa ngi nii yii ay barkeelu la rek mbay. Mm. dañu ciy jàpp rek ci mbay ci barke sëñ bi rek di leen jox tabarkàlla bu ngeen wootee ñu waxtaan bu waxtaan bi neexee rek ñu compal leen. leen waaw. bii baax na bii baax na. 25000 ay bi tam baax na de. fukki junni bii. allo fukki bi waaw ah. ah kuy fokk. ii am na ku buruxlu allo. yow da nga buruxlu jëlal allo. oui. télé bi ba bàyyil télé bi def. maa ngi fi. ça va bi nan la. ak fooy wootee. ah. tur la. tur bi Babacar. Babacar fooy wootee. Mboro. Mboro yaa ngi seetaan émission maximum. waaw maa ngi koy seetaan. noo ko gisee. waaw émission bi jaar na yoon de. ah neex na. waa neex na moom. ok suñu suñu kii joueurs yi wara a joŋante suba incha allah ak Uganda. déggu ma. ma suba incha allah. waaw. suñu joueurs yi dañoo war a jongante ak Ouganda. waaw léegi ñu bëggoon xam sa pronostic lan la. ah 2 bi. 2-0 pour Sénégal. Ah, loolu neex na. ah. ma naan waxal. ah yow kay banal ak moom yaay xool Sadio Mané Edo Mbaye Niang. biir la ah Sadio moom war na ubbi compteur. dafa naa dugal de ah? jot na jot na ko loolu fa nekk li li doon dugalul ñetti match yi bon amul réussite. loolu la quoi man loolu laa jàpp amu réussite bon nu mu peut-être tamit nu mu duggee ci compétition bi. Hmm. war ko duggee noonu. Hmm. jour dangay ngay préparer sa bopp c'est-à-dire que sur le plan mental psychologique. Euh, am na benn période yow entraîneur bi normalement war na la wax ni yow mi yaa yaa war a yaa war a jouer yaay sampu yaay sampu yow yaay hmm. titulaire bi donc foofu da ngay pare pour saa yi boo duggee ngay décisif mais allo sëñ Babacar Babacar waaw yaa ngi ci ligne bi waaw waaye yow compal ko léegi nag compal vingt nag ñu vingt 25000. 25000 la ñu nii compal ko waaw baax na. waaw léegi après da ngay joxe sa numéro. bu mu coupé. Euh, euh, Baye Babacar. waaw Malal. suba ajuma la de. ajuma la kay. te di nga dem juma. incha allah. booy dem juma na nga yóbbu kurus gi. Mm, incha allah. dóor lawraat yi. <laughs> ñaanal gone yi ndam. moom kay léegi lay commencé guddi ajuma. guddi gi nii boo kiiwee rek nga ñamal gaay tuuti. Ah. Babacar am nga fi 25000 kon. d'accord merci beaucoup. waaw léegi yow bul coupé bul coupé. am na benn femme bu ne ci kaw benn femme bu jigéen. Hmm. dina jël sa alizé pour wala. d'accord aywa. tubarkàlla kon moom noonu coach yaa ngi ci am solo. Hmm. ci mbay ñaan en tant que attaquant naka la waroon duggee ci compétition bi. bon dafa waroon pare parce que euh, avant compétition bi am na ay match de préparation am na ay entraînement loolu yëpp war na xam ni man mi maa rejoué. Hmm. donc côté boobu foofu lay pare boppam. donc am na occasion surtout premier match bi. Mhm. donc euh, premier minute en plus. contre Tanzanie contre Tanzanie. waaw c'est inadmissible un attaquant comme Mbaye Niang di raté bal yooyu. Mhm. du yoon un attaquant de haut niveau. am na yoo xam mhm. wala wala. ay Moxset ay. non du ñu raté yooyu. dañuy décisif donc mooy mooy pare boobu. pare boobu boo xoolee sax buñ ko kii fixé écran bi nii da ngay xool nit ki loo xam il est dafa réer nii dafa xam ne kii jour bu parewul la. bii contre contre boobu contre kii la contre bu mujj bi la. waaw souvent booy bu ñu buñu buñ ko zoomé ni écran bi da xam ni parewul du jour bu pare. mais lu koy waxtaan waxtaan rek tëjoo tëjoog moom tëjoog moom waxtaan. Mm-hmm. waxtaan ak moom bon gën ko yàpp. Mm-hmm. jour da koy yàpp. Mm-hmm. jour warul warul dugg serré vide la tête vide bopp bi dara du ci nekk jour da koy yàpp. cest dire que. Euh, dafa mel na àll nu ñu koy wax sax. Hmm? la la nature a horreur du vide a horreur du hmm. dugg si terrain dañ koy yàpp. Hmm. waaw. koy yàpp tubarkàlla loolu jàngat ci yëpp. waaw waaw xam nga li ko ci wax <laughs> dafa dafa am solo malal. parce que tàggat yaram moi j' estime que c' est un tout psychologie bi dafa am solo sociologie bi dafa am solo. ak yeneen ak yeneen ak yeneen c' est au delà de. stats yi mayo yi ak euh, ballon bi. Mhm. Euh, donc dafay baax un peu discours bi nga xamante ne moom la ñuy war a euh, tenir ñi nga xamante ne ñoom ñooy xare ji parce que ay nit rek lañ ñoom également. Mhm, mhm. ils laissent derrière seen famille xam nga bàyyi seen njaboot bàyyi askan lëmb. Euh, euh, c'est pas pour rien ngay dem palais on te un drapeau. Ah. wax la ni franchement réew mi nga dem teewal. Mhm. ñu wëlbatiku di jël argent du contribuable di leen ko jox. te ñoo militaire rek la ñuy taggal hymne national. waaw militaire rek la ñuy woyal hymne national. bu ñu bu ñu nekk ci mbir. donc c' pour dire que ñoom également li ñuy def xare la. Mhm. comme ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi xare ci leneen. donc day baax nit ñu pousse leen mais day baax ñoom aussi ñuy wane jom ak abnégation. Mhm. mais également coach euh, jàpp naa ni euh, day baax itamit. encadrement bi xam discours bi ñuy tenir ndaw ñi demain par exemple euh, jour la bu décisif mm. parce que am na ay erreurs yoo xam ne mënoon ñu ko pardonner peut-être en match de poule euh, bu ñu tollee fii ci compétition kenn dootu la ko baal mm. et c'est des erreurs qui vont se cash mm-hmm. euh, boo ko boo ko defarul yow sa morom daf koy defar nga daal di ñibbisi ci ni mu gën a gaawee mm-hmm. donc lan mooy nekk le discours à tenir demain aux garçons penalty penalty am na de arbitre mm. waaw wala ah, wala <laughs> kii révision la wala wala révision la dama si xam. kii lu ñu naral pour man révision la ah bon d'accord continué wala. <laughs> non xam nga xam nga fi ñu toll nii. li ñu naan marché couperet la. Mhm. c'est-à-dire que boo perte da ngay ñibbi. Mhm. donc euh, loolu il faut ñu wax leen ko. par exemple gën leen gën leen ñaax wax leen valeur u maillot bi. et puis il y a un investissement aussi colossal depuis un temps. saa mhm. xaalis bi ñu yóbbu foofu dafa bëri. ñetti milliards. am na am na ay taekwondo ay. lu kenn xamul xam ne bi ci ay. forfait ñoom dañuy mhm. ñoo xam ne ñu indi ay kenn du leen récompensé. Mhm. yooyu yëpp a donc yooyu yëpp il faut nga dugal ko seen bopp. donc il que même au de l'entraîneur mu am ay personnes yoo xam ni. Mm. dañ ñëw wax leen luy valeur bu bi ak lan lay représenté. boo xoolee tamit ay joueurs yu bëri euh, juddoo wuñ fi ba pare dañu am benn si mod de mode de fonctionnement boo xam ne dañuy ñëw sali jël avion dem football yi. dem waa amul amul amul osmose jaxasoo ñoom nit ñi jaxasoo boobu. est-ce que sur le terrain ça euh, euh, loolu dina ci am impact. si day impacté cest yi nga xamante ne euh, mbapat nañu jaar fii bu ñu la nee mbay Diagne ñu ne la HLM la jogee xam nga bu ñu la ne en Saivet ñu ne la jaar na Liberté 5. mais boo xoolee deux mille deux mille deux da ngay da ngay gis booy dañuy wàcc ci suuf da gis benn taalibe te loxo El Hadj Diouf. par mhm. xale bu ndaw taalibe solu sax daal te loxoom loolu bu ko duggee seere da koy yëg da koy sentir. Mhm. donc foofu lay commencé mais boo xoolee équipe bi amuñu loolu ñu bëri xamuñu leen ñu bëri xamuñu leen ñu bëri xamuñu leen tubaab la est-ce que mën nañ hymne bi sax est-ce nañ hymne am na ñoo xam ne waaw waaw duñ leen xam non buñ toxoon ñi si benn mën nañ parce que sart bi daf koy daf leen koy imposer léegi mm. xam nga dañu am benn code de ci équipe nationale bi mm. euh, pour jàng hymne national pour xam la mooy réew mi xam mm. affaire yooyu noonu yooyu dañu koy jàngal mais balaa ñuy sori ci waxtaan bi kot. daaw ñu ñuy gunge ci xew-xew bi. te ñoo ñee ka ca jiitu mooy Tigo Cash. ngi. Tigo Cash ngi. Tigo Cash ngi. Tigo Cash a ngi. waaw mbokk yi seen ambassadeur Tigo Cash moo dellu si waat di waxtaan ak yéen est-ce que xam nga fii ba le 19 juillet saa yoo defee Canal Plus jaarale ko ci li nga xam ne mooy GS 150 GS Tigo Cash mën ngaa am surprise bu am solo Tigo Cash dina la yónnee 100 MO internet. waaw ba pare saa bu Sénégal joué dañ lay may 500 MO internet pour nga mun cee seetaan match bi. fii ba le 19 ci yéen des Tigo Cash bés bu ne mu bett ñu ak ay xéewal yu am solo mbokk yi gaaw na yomb na te wóor na.

kon ma nga noonu gannaaw euh, Tigo Cash googu la kenn koo xam ne tam woote nga ci numéro yi dinañ la may fukki junni. Mhm. léegi parce que sànq may naa juróomi junni gars yi ne da dama dama ko comp naa joxe ah. fukk. gars yi dañoo yëwan. léegi kon ku woote fàtte fële l'écran waaw kii bi maa ngi ñëw ci ñoom l'écran nga xam ni taar kàlla mhm, mhm. ah, l'écran da nga nuroog moom sax yow oh. moom laay kii moom laay maa ngi noonu l'écran mais bu bëri fer ñeenti googule mhm. waaye tam ku woote dinañ la may ay mayo mm. te su te mayo yi nag ñu ci war a gërëm sunu sunu benn benn partenaire bi nga xam ni tabarkàlla dafay jaay ay bagage ci tàgg tàggat yaram ci wàllu sport moom nag euh, waaw moom mooy Baye Zal boutique baa nga nekk ca Touba Sandaga extension mhm. en face boulangerie Sandaga ku bëgg ci affaire yi danga nga koy woo téléphone 77 649 40 10 wala 650 50 00 nga woo téléphone jox la ay maillot jox la lépp lu jëm ci wàllu sport donc coach mhm. yaa ngoon fu neex yaa ngoon ci naka la ñuy préparé attaquant Mbaye Niang mhm. mais balaa ñu soy dama bëgg nu xool Ouganda bi ñoo def footballeur suba di ki boo xam ne entraîneur ba nee na ragalunu faalewunu ferege ñeentewunu ngañam nekkul su ñun loolu dañ la wax entraîneur tubaab bàyyi yéen tubaab bi tax nu yab na ñun du ñu ñeme nii rek ñu attaqué nii non du xam nga xam nga xam nga léegi football bi léegi c'est standard euh, ni ñuy Ougandais ni ñuy préparé wo mhm. ñun noonu na ñuy préparé wo mhm. égyptiens yi noonu na ñuy préparé wo mhm. muy keneen ak keneen mais différence bi c'est les individualités par exemple ñun am nañ Sadio Mané ñoo am nañ keneen ñoo am nañ keneen. ñun am mm-hmm. nañu mbay ñaar ñoo am nañ keneen. Mm-hmm. différence foofu la nekk. Mm-hmm. donc il faut que sur le plan individuel des individualités. ñuy def différence. problème yëpp loolu mais équipe boo xam ne tamit dafa sonal équipe euh, comme Égypte bi ñuy joué ak ñoom. waaw ah. ak euh, RDC bi ñuy joué ak ñoom boo xoolee équipe équipe la boo xam ni. équipe bu équipe bu Afrique la comme ni nga koy waxee. bien sûr boo xoolee base bi déjà se local. ba pare ñiy génn du ñu génn fu sori. équipe bi adapté wu euh, Afrique du Sud RD mhm. Congo. waaw gën kenn ki Montréal xam Impact. Montréal ak Impact Montréal waaw ay joueurs yi nekk ci du ñu du ñu du ñu génn lu bëri boo xoolee seen tur yi. waaw tur yi ay tur la xam ne ñun liñ xam bëriwul. góol bi def naa Sundowns. même Mamelodi Sundowns. South Africa la ne. am nañu beneen góol bi tudd Matampi. voilà moom mooy seen titulaire bi Matam bi nag c'est un bon gardien équipe la boo dañuy adapté wu par rapport ak compétition bi mhm. boo gisee gànn Gueye il s'en sort saa yi bu ñëwee fii il s'en sort parce que Gana boo xoolee dafa xam terrain daara mhm. daara xam na terrain boobu terrain mbar géej Gana xam na foofu mhm. gënnuus xam na luy gënnuus xam na luy kek xam na luy gazon donc il est à l'aise ci ci ci côté boobu surface yëpp donc seen base locale mooy seen force. football Afrique dafa am nu ñu koy defee. donc seen mm-hmm. force yëpp. côté boobu la nekk ñoom seen daal li ñuy mm-hmm. bàyyiwuñu seen kii quoi. waaw seen seen cosaan. cosaan léegi léegi coach dañuy xool benn benn match Ouganda. Mm-hmm. ak sunu entraîneur. def nu ay kii presse interposée. conférence de presse sànnante xeer sànnante xeer mais euh, Aliou il a été plus tempéré tey xam naa nag xëy na amul ñàkkul mu am lu mu lu mu nas. daas fanaan waaw daas fanaan mais Mamadou Ndiaye moo ñu toogal foofu ca ca Caire lii la liggéey ci ñaari conférence de presse yi nu xool ko hmm. Sénégal Ouganda le match est lancé pour sa deuxième CAN consécutive le sélectionneur ougandais Sébastien de Sabre ne cache pas ses ambitions. oui forcément on craint pas le on craint aucun adversaire en fait c'est du football y a onze joueurs sur le terrain je ne vois pas pourquoi on va rentrer sur le terrain en craignant le Sénégal maintenant. Euh, voilà, on sait que le Sénégal, euh, collectivement et individuellement, ça a beaucoup plus d'atouts que, que, nous, parce que c'est comme ça, c'est un fait. Ils ont fait la Coupe du Monde, c'est une très belle équipe avec un très bon entraîneur. Donc euh, voilà, mais bon, quand vous rentrez sur le terrain, si vous, euh, si vous respectez l'équipe, sur parce que euh, c'est une grande équipe d'Afrique, mais vous craignez pas l'équipe. C'est parce qu'on aurait craint le, le, Congo qui est mieux passé au, au classement FIFA, on les aura, on les aurait pas battus. On aurait craint l'Égypte, on n'aurait pas fait un bon match même si on a, même si on a perdu. On aurait craint le, la Côte d'Ivoire en match amical, on les aurait pas battus non plus. Donc euh,

et tirer parti euh, euh, positif de tout ce qui se passe. Et c'est ce qu'on essaye de, faire. Et je pense, comme je l'ai dit, cette, euh, cet élément-là qui, reste quand même un petit élément. Pour son homologue Alun Sissé, l'Ouganda sera un adversaire redoutable pour les Lions, condamné à jouer ce match à fond pour passer en quart de finale. Ce sera un match engagé et je crois que nous les avons bien observés.

li ñaari entraîneurs yi wax coach dégg nga leen de. Mhm. waaw surtout bu bu bu coach Ouganda bi. Mhm. boo xoolee man retenir naa ñaari yëf mooy ragalul. Mhm. nee na ragalul beneen mu ne on va s'adapter. le football c'est des adaptations. waaw loolu moom d'accord naa ci ma à cent pour cent. waaw donc Aliou Cissé même bu dégloo conférence de presse rek war na xam ni. waaji waajal na ko. Mm-hmm. tey ñoo taxaw ci ginnaaw. waaw mm-hmm. contre ko ragalul il va s'adapter. Mm-hmm. léegi ñun dañu war a ñëw football suñu football. mais mais la parce que am na lu mu liggéey. il faut tamit mu génne ko. waaw waaw waaw fa mu génne lu mu liggéey. mu génne lu mu liggéey. gars yi jaar ci laafi li ngay liggéey foog nga koy génne. waaw waaw. foog ñu gars yi jaar ci laafi di ko. foog ñu jaar ci laafi di teel a concrétiser tamit coach parce que man daal raté yi moom. raté yi c'est trop. bon boo xoolee. <clears throat> test majeur yu Algérie la woon dañ ko raté mhm. mais bii tamit match couperé la kon test majeur la. waaw ah, ah, wasin Uganda la wala keneen bu ñu mënul dóor Uganda. wasin ba dem tool de. waaw wasin ba dem tool tamit wax na si kii bi. conférence bi moom tamit. mais ils vont se concentrer sur l' essentiel loolu tamit am na solo. mais loolu la parce que. gagné gagné rek na ba pare seen objectif tamit ñu atteindre ko. léegi yow coach ñaata nga gis score. 2-0 Sénégal. 2-0 Sénégal suñu vraie valeur moom. mën nañ ci génn facilement mën nañ ci génn. deux heures baax na coro léegi euh, balaa ñu jàll si ñaareel bi pàcc mhm. ah dañuy daal di tegaat musique parce que man daal Ouganda daal neex nañ ma mhm. waaw Ouganda daal neex nañ ma daal yow est-ce que doo mujjee dem ah? doo dem Ouganda ah, tamit xam nga ay Ouganda ay Rwanda yooyu mm. mais Rwanda moom c'est un bon pays mm. j'ai fait Rwanda en 2011 Guinée tam bëggoon nga ko fi ay jamono Conakry dem nga fi ñëw bëgg a doon Guinée dégg naa dañuy dem Coupe d'Afrique foofu mhm. boobu du ma dem mission damay dem vacances ah maa miin Conakry maa ko ñaay. ah man nga ko wala Ndiaye Uganda. Eh, Mbaye. waaw yow lii fecc. ah lii man kii ah? dama ko jàppoon ku dëkk Nigéria. rek ay tànk bi oyof. ah saa yi nag da ngay waaru. Hmm? affaire yi dafa neex de. li nga ah. am na benn booy bu dëkk ah. naa tam. tam yooyu lay def te way ca kaw. waaw hmm. damay déglu soxo mu koy teg ci kii bi boutique bi noonu. Hmm. boo demee foog nga taxaw. c'est que musiciens yi ñoo bëri ay feem. ah léegi léegi kon mu ngi noonu suba ñun. Mm-hmm. obligatoirement dañu war a gagné. waaw mm-hmm. ah. mais balaa ngay dem bëgg naa nga may cinquante mille ak mayo balaa ngay dem bëgg naa nga jël kenn may ko fukki junni ak mayo. yow neel allo rek ku ku njëkk wuy rek. posé une question bu la neex may ko fukki junni. Mm-hmm. allo. nekkee am na ku nekk ci ali ci ci ligne bi. allo. nee na mu ngi noonu wuy ko. allo. na nga def. ñoo ngi fi. Ah, noo tudd. Anta. Anta. fooy wootee. Ah, Liberté 6 Liberté 6 soriwul. may waaw noo gisee match suba bi. ah match bi xanaa bi amin loolu moom yàlla na barkeel. loolu moom yàlla na bit bu nekk ñetti junni la. Ah, waaw mu des mu ñu buñaa la ko. nga ko paas junni nga paase ko. ah bii bi. Anta Anta naka la. baas. waaw tubaarkàlla léegi yow balaa ngay dem Anta. waaw dama la ci tegal benn mayo. waaw mayo bi Baye Zal boutique ca Touba Sandaga extension moo la ko may. ah moom moo koy waaw da jël da jël fukki junni. ah maquillage sa kanam ba mu saf sàpp ak équipe nationale. waaw sol sa mayo. sol waaw. daal di daal di ñaanal Sénégal nu gagné nga gërëm Baye Zal ndax moo la may mayo soo jógee na woo téléphone dégg nga. <laughs> boo jëlee xaalis bi na nga si jënd crédit Tigo. woo ko. nga. waaw maa ngi lay dégg. numéro bi nga woo ko 77 950 50 00 yomb na yàlla. waaw. 950 répéteel comme à l'école <laughs> répéteel 950. dégg ñu la de. allo. 77 950 50 jàng école. ah, ah. ah jàng école. katte na ko. ah yow yow <laughs> léegi yow bul kii bul korosé dinañ la jël ci kaw. Mm. jël sa numéro téléphone. waaw. tubarkalla kon kon su ma noonu. Euh, kon kon daal suba nu ñaan yàlla may nu ndam. yàlla may nu ndam waaw. may nu ndam daal. jërëjëf coach euh, Coro. Mm. Papa Ndiaye sax ngeen waxtaan yéen ñaar de. keroog tey da nga xaw a timide lu xew. xam mm-hmm. dama stressé dama <laughs> stressé. le match de demain me stresse. ba pare damaa namm abaa. Mm. xam nga dafa am ñoo xam ne mm. coach boo toogee ak ñoom dañ lay rof tàngoor. abaa foofu la ne <laughs> di ruube di rof doole xam nga. <laughs> manqué nañ nag malheureusement taluñu mi ngi waaj abaa show bi sant yàlla. parce que suba soldat wut lay joué incha allah. Mm-hmm. ticket yi jeex na te loolu lañ ko doom ñaanal. di ki def nag mooy nit ñi teel a dem. Mm. parce ñu ñun ñi organiser ñun borom xew mi dañuy jaay ay ticket bari. <laughs> da nga def trafic. bu ngeen non trafiqué wuñu. Ah. xam nga doo yem ci mille huit cent yi. Ah. parce que ñii dinañ am gàllankoor ñii duñu ñëw. ñii dinañ jënd pour jàppale la waaye duñ am kuñ ko may du wóor. Mm. Ah. du xaalis dugg neex na mais tam nit ñi ñoo doon. mais dañuy ñëw incha allah marché bi day jeex ñu ay cinq cent ay waaw waaw. <laughs> yéen ñi teelul ñëw du ngeen dugg. wallaay wallaay. teel am na fan zone foofu de. am na fan zone yaa nga fa ñuy rang ngeen parce que Abba dafa bàyyi xel ñëpp mm-hmm. xam na ni Abba wu ñëpp la mm-hmm. ñii dañuy jógee banlieue ñii jógee Thiès ñii jóge Touba ñii jóge feneen donc ñooñu daf leen bëgg a permettre bu ñu ñëwee ñu seetaan match bi en toute quiétude ci hall grand théâtre parce que tegal na leen fi ay écran géant mm-hmm. donc ñoom bu ñu seetaanee ba pare daal dee buruxlu nànk dugg ñun ñu dëkk fii nag soriwuñu mën nañoo seetaanee suñu kër ba pare soog a lu dem mais pour yéen ñi nga xam ne fu sori ngeen dëkk Aba aménagé na lépp pour ngeen mën a seetaan match bi seetaan Aba show mm-hmm. léegi nu xool Pape Aliou Ndiaye soo ko ñëwaat waaw donc ñoom euh, également ñoom pare nañu ni Aba pare noonu la pare moom tamit moom Pape Aliou Ndiaye pare na tout comme ay naataangoowam xam nañ également que demain ce sera pas un match facile voilà waaw ah mais noonu <laughs> léegi nag léegi nag xaaral Pape Samba teg Pape Aliou rek waaw Pape Samba Je pense qu'il faut plus penser équipe. Il faut penser équipe. Euh, voilà, ça fait un peu plus d'un mois qu'on est ensemble. Il faut penser équipe parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, on le fait pour l'équipe. Là, on, a, on en est au stade où c'est des matchs à élimination directe et il n'y a que le collectif qui prime. de la manière la plus sereine possible. On, travaille, on a travaillé pour ça. Voilà, aujourd'hui, euh, tous les adversaires qui se dresseront à nous, on se doit de gagner. donc euh, ya a pas y' a pas 36 000 chemins. barkal ça va jaa ngi dem. voilà ils ont compris le mot parce que moom it comme je dis tout le temps heure bu ne koy woo moo fi nekk e pour la rédaction et pour Maximum. kan et pour le journal de la CAN. Eh, allo allo FM xara xara allo <laughs> nekkoon moom nga ne. kan bien. let's go. ñu la wax nga ne. kon ndekete kii li muy. goro la ci kër gi li muy football fii ci masam bi yëpp goro la. suñu goro la xamoo lii. man dootuma wax ci àdduna am Alioune Ndiaye yéen seen goro la man sama jëkkër la. léegi je vais dire ballon pour sunu goro. sunu goxo kii récupère. waaw votre goxo. waay paa waay. ba ba ballon ballon pour sunu goxo. goxo goxo kii récupère. en tout cas il est tenté de faire une bonne CAN. ah oui waaw il est en train de faire une bonne CAN. macha allah waaw ah ah macha allah. voilà te loolu la niveau bi équipe nationale. Ah bien sûr niveau bi mu joué trois matchs. bien sûr. ba pare Alioune a été très inspiré wàcce un numéro huit. comme post six. non mais loolu et xam nga jàmbaar la jaar jàmbaar dañ lay forme ci post yu bëri da nekk à l'aise ci poste yu bëri loolu yëpp ngi ci mais euh, poste li muy def nii yàgg nañ ko wax. mais mais li muy def nii tam coach ñun suñu loxo nga ci biir de ñun waa TFM. waaw waaw ah, ah parce que parce que lii nu ko cuuraay. waaw sarxatan ko ko <laughs> ah dégg nga ci ay ay kii. ay baax xam nga ay baax a ci àdduna. Ah. na fi saa waaw. moo gën a dégg ci àddina. koy wax Nafi Sarr lawbe lawbe moo damm ci affaire bi. ni nga ko ah. lii mu lii mu cuuraay saraxatan. Hmm. naan naan li koko. roofal ko ko ay ginaar bi sab ko mu naan li mu nekkee nii ndekete ñun ndekete dañoo jox suñu wàll supprimi ah yow tamit donc mi ngi noonu maanaam ils ont compris le mot d'ordre en fait xam nañ ni que ils doivent gagner ils doivent gagner non seulement pour ñoom parce que kuy bëgg ndam itamit ñoom ñoo la ko ëppale quoi qu'on ñoom quoi qu'on puisse dire parce que dañu mm. bàyyi soxna bàyyi famille bàyyi ay doom ça en fait j'y tiens mm. parce que euh, ñoom ñiy dem xare bu ñu sañoon dañuy am ndam mm. ñun ñi leen di seetaan tamit ak di leen supporter bu ñu sañoon ñoom dañuy am ndam donc ñoom comprendre nañ le mot d'ordre coach li ñu bëgg mooy gagner maintenant gagner également nelaw du ko maye yaafus du ko maye il faut se donner les moyens de gagner. waaw mais il faut ñu encourager leen. waaw waaw loolu laa wax leen xam nga soxla nañ suñu a mhm. loo xam tam xewoon na fi. Mhm. te man daf maa marqué. mooy lan ah. daf maa marqué lool sax. mooy waaw léegi loolu nag laa bëgg nga nga woon ma Pape Samba. xale xale bi dëkk Thiès gone Thiès gi waaw gone Thiès gi am na benn goos bu dëkk Thiès boo xam ni ca ba muy door am na lu mu defoon loo xam ni tojoon na réew mi ñu rajax ah xanaa Saneex la ah yow <laughs> ah non non non et on avait tellement en a toujours hâte quand même de. de le revoir de revoir ce Saneex ah <laughs> c'est magnifique mais euh, Boy Medina. waaw waaw booy Medina da laay wax man. Mhm. ma daal waaw na def. maa ngi sant man li ma jaaxal mooy yow maa ngi yow noo bokk Medina man du ma la gis. non xam rek. sa ay ruq ngay toog. ma nekk ci mission yi rek. mission yan. mission yi mission ngay dox. waaw di ko laqarti. si booy riisi yi dañu doy waar <laughs> eh, ay mission lay dox nee na. xale lu Medina man na def. maa ngi sant bu baax. naka waari. waa di sant fii nag xoolal c'est le bégi total. waaw fere ñeentewul dara ñun. relax la relax la. Mm. man naa benn madd. wax mm. faat sama oto. fii laa ko bëggoon ñambaane ba mu saf. <laughs> man kii bi ma jënd. nu mu tudd mango mango bu ñu baxal. mango ba yooyu xaaral oh rek foog ma organiser ko. bàyyi leen ma ngeen daje suba ba pare te ñu stressé. poobar bi poobar ko bu mu ah? saf. Dakar beeg yooyu doy na waar. waaw man de boo ma bari doon tuuma. <laughs> ah, ah. ah xale yi jaaxal nañ ma. mais yow noo dundee kan bi. waaw kan bi ni ñu koy dundee mooy ñëpp ni ñu koy dundee toog ci euh, kii nen. waaw waaw waaw wax nga dëgg de wax nga dëgg de. di tiit wax nga dëgg di tiit. tiit parce que tamit loo xam ni ñëpp ko bëgg ndam xam nga ñëpp ko bëgg. ñëpp ko bëgg te Sénégal la ñu am. te ku nekk sa sa gox ak sa dëkk. Mm-hmm. ngay tiitaroo yii. day tax nga xam fi nga hmm. def sa dëkk. Hmm. andi loolu. fi nga def sa dëkk. andi loolu andi loolu seetaan. waaw sa xol da ngay tiit. doo amati sa sago doo àndateeg sa sago. ñun daa xam la lañ bëgg. Hmm. nañu góorgóorlu ba sori. ba sori ba sori. waaw même xam nga xam nga man coupe bi. yàlla rekk a xam. waaye nañu góorgóorlu ba sori. waaw. boo sori boo loo tuddee sori yow. noonu la demee. àgg ba fan par exemple. àgg ba fan. même bu fekkee final sax sori la. waaw wallaay wallaay wallaay. boo laalu si coupe rek final sax sori la. mais ñu 2002 lañ ko jëm final 2002. te xam nga depuis 2002 la meilleure performance du Sénégal en Coupe d'Afrique Égypte gii la woon en 2006. oui ca la ñu demoon demi-finale. Mm. naar ya ak euh, arbitre Cameroun di di divine di divine xaw ma mm. sàccu nu ba bañ a lànk tiré suñu penalty. non arbitre nag ñoom dañ ñoo yàgg ah, sonal dañu yàgg sonal sa moo tax mooy mais mooy man mooy waral li may wax chaque jour. Mhm. dès le départ fais ce que tu as à faire. Mhm. parce que li nga war a def yow boo ko defee. après doo nekk di plaindre naa arbitre arbitre bu defee. plus lay doon. Mhm. bu defulee nga bokk ak yàlla te xam ne def nga li nga war def. mais boo yaafusee ba pare bëgg a wëlbati ko naan arbitre dañ lay tax jéppi. boo demee tax di wax. fii FIFA dañ lay jéppi ñoom ñoo ñuy arbitré. waaw dinañ leen xool. ah loolu garaaw nañ jaarale yëpp ci yow xam nga tam. non xam nga et puis Sénégal mi yàlla dañuy yàlla dañuy tàccu. Mm. xool suñu yoon xoolal Cameroun. Nigéria la dajanteel quart de huitième de finale. Mm. loolu affiche coupe d'Afrique la. dëgg la mm. finale la. finale la Cameroun Nigéria finale la bu toj. nun ñu jox nu Ouganda xeebu ma leen nag dëgg-dëgg. waaye Balla Gaye yaaw jàll. non nañ ko war a gañe. ah Malal dugal ci loo xam. maa ko wax rek waaw lii sa bopp rek la nag. optimiste rek ko rek. mais booy da ngay da ngay jël Balla Gaye mën nañ football am nañ sëriñ. da ngay boole kaak yaaw jàll. mu lay def ay bëre léegi mu def te li mu war def ba ba yow. yow mi toog di seetaan da ngay tiit da ngay da ngay tiit comme kii da tiit comme kii comme Bijou Ndiaye xoolal xoolal xoolal li. xoolal xoolal li morso bi dafa jëlëb sër ndeysaan baajo bi muur télé bi bu déggee ñu ni bit ana mu ñëw yër pour bañ a bañ a xam nga lii tam ah? ah léegi kii bisu ngeen ko jinni ah bisu la ni bisu lañ ko tuddee wa bisu mm-hmm. bisu Ndiaye bisu bi doon dox quartier général mm. ak Baye Seex yëpp ngeen sama mag gi de moom ngeen tuddee kii <laughs> da ngay jël paar ah waaw ah? ma xari na ma torop seetal ma keneen mais hélas waaw euh, paasal coro paasal ni naa la rek coro pas naa la. acca na neex euh, Malal dañuy delluwaat Égypte euh, xooli ki nga xamante ni moom euh, mi ngi fa ànd ak douzième gaynde te ràññee nañ ko également ci toutes les compétitions yi nga xamante ni équipe nationale bu Sénégal daf fay dem. Mhm. moo xam football moo xam basket moo xam leneen. Ndiaye Drapeau ci match bi nga xam ne ci la ñu génn ñu defoon ko nag muy meilleur supporter mu ràññee ku nekk meilleur supporter mhm. euh, ginnaaw bi mu nekkee ci gradin yi pousse équipe ba mu àgg ci victoire mhm. euh, ñu xool li mu wax Mamadou Ndiaye Momar Ndiaye, alias Ndiaye Drapeau, je suis le porte-drapeau national toutes les disciplines et sportives du Sénégal, chevalier ordre national de mérite décoré par le président de la waaw kan bi damay ñëwoon si kan bi di di remercier président de la République Macky Sall di remercier ministère sport mi nga xam ne moo ma fi indi en tant que porte drapeau national pour ma ñu jox ma yàlla def premier match bi ñu ñu ñu choisir ma jox ma trophée fan di match maire supporter di match euh, premier match Sénégal Sénégal gagné woon 2-0 premier match. avril. waaw c'est pas la première fois la troisième fois may jël trophée maire supporter jël naa ko euh, trois coupes d'Afrique. Euh, tout premier première fois Gana la woon maam Biram nekk euh, euh, l'homme de match ma nekk fan de match gagné ko tamit ñu organisé centre bi Dakar organisé coupe xale yi ma jëlaat ko encore ak tey jii ma jëlaat ko c'est parce que la troisième fois ma di ko jël. waaw li sama mbébét mooy di ñaan yàlla trophée bi moom ma ko trophée Sénégal Sénégal yëpp ko bokk parce que dama ñëw défendre couleur nationale du Sénégal Sénégal moom ma fi indi ñoom laa ko défendre trophée bi Sénégal yëpp ko moom sama mbébét di ñaan yàlla. amul lu ñu nekk Sénégal képp képp ku julli ñaanal équipe bi ñaanal xale yi yàlla may leen ndam ñu jël ñu dem ba final yàlla def leen ndam ñu tro am trophée coupe d'Afrique parce que tant que am nañu lu ne ba mu des trophée coupe d'Afrique trophée coupe d'Afrique moom bu ñu ko amee rek moom dina wàññi. Eh, eh. gaynde la de. Mhm. wax ji benn la ndam. ndam rek Ndiaye drapeau gis nañ ko malgré son âge. malal mhm. nee naa ko chaque jour dama naan ko doo màggee ndax stade yi. wallaay parce que son sonnul. ci di pousse équipe nationale sonnul ci di gunge ñi nga xamante ne tout le temps ñoom ñooy ñëw di dollee ci douzième gaynde muy ànd ak ñoom di leen euh, euh, di leen gunge di pousse équipe bi parce que à son âge bu mu nee supporter ba ràññeeku ba nekk meilleur euh, meilleur fan mhm. ça veut dire que bëgg na équipe bam gëm na dëkkam bëgg na ñi nga xamante ne ñoom la gunge ñu di gaynde yi donc moom tamit dañu ñaan suñu borom bàyyi ko fii mu yàgg di gunge gaynde yi euh, mais euh, li ma retenir ci discours am mooy discours ñëpp ndam xam nga loolu dama lay jàppal si Ndiaye drapeau mhm. yi muy takk ci pins yi galoo yi bu mu takk compétition bu mu dem la compétition bu mu dem xam nga lool ah yi mu takk nii hmm? boo ci gis compétition la dem jox ko mu ñëw takk xoolal xoolal pins yi pins yëpp ay jongante la jeux africains woo jeux de l'amitié jeux olympiques coupe du monde moom na version rouge rek ak étoile bi ak drapeau national bi yore costume bi di wër jàmbaar la nag jàmbaar la mérité na nu woo ko ca pale ba nag jox ko nag Mm-hmm. médaille bu rëy ndax kii. mën nañu ko wane ku bëgg comme ku bëgg sa réew. waaw waaw moom moom motiver gaynde yi. waaw euh, président Macky Sall dafa adressé benn message pour Lions yi. ah Macky tànn Lions yi. waaw pour ah. encourager leen. mais est-ce que xam nga ñoom politique yi ñoom politique yi. ñoo ëpp intérêt. Uh-huh. ci équipe nationale di wéy di dem ci kanam. yow Macky xam nga Macky tam gis nga nag. Mm-hmm. dañ ko wax tey de fii. waaw Macky bàyyil autorité bi ngay bloqué. <laughs> autorité bi dañuy fay sunu xaalis ñu bloqué nu naan Macky mooy jàll dem Touba day dem fi Macky sa hélicoptère te bàyyi sunu autoroute dañuy fay sunu xaalis xam nga noppi. waaw waaw gannaaw man ko kii noonu rek dama ni président bonjour message encouragement motivation <laughs> malal waa politique yi. waaw intérêt ci. équipe nationale dem ba finale mhm. wala ba gagné coupe bi parce que je le dis et je le répète il que le sport qui peut réunir tout un pays. Mm-hmm. ñu toogandoo seetaanandoo naanandoo café mm-hmm. lekkandoo gerte caaf. Mm-hmm. amandoo jàmm gis nga temps yi lu coow li di bëri yëpp xaw na apaiser tuuti au moins on parle de sport parce que ah. sonn nañ ci pétrole ak. 400000 ak Alioune Sall ak mm. Macky Sall ñu sonn. vraiment nañ ci rek mais encouragé Lions yi rek. ñoom ñoom seen président def na lu rëy loo xam ne lii ñun suñu bosoor na ko def. lu mu war def noonu. avion la jël yàpp ci ay sëriñ pour ñu liggéey Sénégal sam ajuma ji. <laughs> ay vëdu la ñu def ñoom ay vëdu la de. doy caaxaan magie noire. bu ñu ko ay kii la bu ñu ko tegee ci sëriñ bu yeboo ñun ñu ñibbi. li ñu leen tuddee ñoom li ñu leen tuddee ñii. ñii ñan la nii. xeetu vodo gi yooyu la ñuy def vodo yi waaw vodo yi garabu garabu yi lañ dajale foofu. concours les meilleurs garabu garabu pour ñu xoñ dem suñu booy. vodo paateeg ci yam ndam yàlla koy joxe. billaahi ay yow gisoo di ci avion sëriñ suba gis naa deux deux zéro de. gis nga 2-0. ko wala. <laughs> Ah, de tiit na xalaat eh, war ma leen yow ma suuy leen tuuti ndox. waaw suuy leen ndox. <laughs> waaw bu ngeen yeewoo bu ñuy football bu Oganda yore bali ngeen dëpp dàll yi. dàll yi ah di leen xulum di leen xulum yàqu ngeen ñu xulum xulum yàqu ngeen ñu tàmbooy. waaw ñoom dañu otesu nii ñoom Serigne. Uh-huh. danoo otesu. danoo aso. lu neex. waaw li soosey wax aso. <laughs> sama mbokk soosey léegi. may leen xaalis bi may leen xaalis bi baa ngi nii nag woote leen ci numéro yi ñu teral leen suñu yaram dafa tàng nag leen am na ku am na ku nekk ci ne am na ku nekk ci ligne bi kooku allo Xaadim lañ koy wax Xaadim Bamba boo ñaanee mu war a am de non 2-0 2-0 rek. 2-0 ah 2-0 xam nga ah, tax ma gëm loolu. yaa seen rajax rajax rek ngeen yor. xam nga tax ma gëm loolu. ñëpp mm. a manko 2-0 yi. sëñ moo njëkk a woote. Mm. jox ko juróomi junni. Mm-hmm. mayo mayo waaw dañ koo may mayo am na benn femme su woote ñu jox ko fukki junni mu génn Baye Bamba dikk est-ce que du femme bi ngeen may mayo yaa ngi jaxase en tout cas daal maa ngi maye man jaxase téléspectateur man daal maa ngi maye man di dem man femme bi nga may fukki junni mayo ne ko maquillage ul sol mayo waaw ok uh-huh. Bamba daal yow comme nga woote nga amagum nga ñetti junni en attendant ñuy waxtaan waaye yow teel teel ñu waxtaan amagum nga ñetti junni ñëwal Bamba yaa ngi seetaan émission maximum Ah, neex na yaa ngi ci gis sa bopp bu baax. xoolal ah, l'écran waay. ah bi terrain bi l'écran. oui. waaye yow daal match bi daal am nga yaakaar ne Sénégal mooy gagné allo. ay waay sëñ Bamba bul dem waay def nii. Xaadimu Rasul bul dem. dem na <laughs> ah. keneen ñëw ku ñëw rek fukki junni. Mm. waaw. te ngeen ma ko jox mu gën a mais mais El yow. Mm. dama lay dégg ngay laal fële. Medina. ci boîte bi noonu. sa araba. penc mi. ak ah, penc mi da ngay laal foofu léeg-léeg. léeg ma dégg ci ci soxo. ay sound yoo xam ni. ay sound particulier la. équipe nationale jubilé laaj ma man. ah équipe nationale jubilé. waaw lay wey. ndeysaan demal jubilé ah, jubilé. wéyal gaaw man gaal gi naago daan jël mm. doom boo xamul luñ ko boote maytul def ci moom lu ñaaw ñaaw mm. ndax yàlla noppi na kon jubile jubile ko jubil demee ko jubil demee jubile waaw waaw waaw gaynde yi tubarkalla ah. rek ah loolu laa xam ne lii temps la coro ndoxam. Mm-hmm. aywaay eh, aywaay sëf na ma ko nii. mais yow yow foo toll fu mu toll nii ci carrière bi. waaw fu ñu toll comme dañu am producteur muy Mbacke Dioum ma koy nuyu de passage. Mbacke Dioum tonton Mbacke grand Mbacke Dioum waaw ci moom laa yaa ngi ci ay loxo. waaw ci moom laa nekk macha allah. Mm-hmm. comme moom moo ñu yor moo ñuy de wax defal bu ñu tolloo fii sax moom moo ñu naan def leen nii def leen nii xaar leen ma ci lii. ñu mm-hmm. ko ci lii moo tax boobu ba léegi. boo ñu gisee rek Mbàkke moo ñu jox feu vert boo ñu gisul rek Mbàkke mm. bi muy commencé duy penc mi malal. amul single man xaw ma ko woon de. Mm. benn waay moo ma sa ñëw ne ma am benn booy. boo xam ne day dem penc mi guichet fermé ma ne ko booy penc mi ak ni mu naan du fay nga ne ma benn booy guichet fermé mu génne ay vidéo ma ne ko baal ba ma gisoo ko sama bopp. waaw waaw dama mm-hmm. après si c'est après laa ko découvrir ma ne waa après man tam xamoon turam ma naan ko booy bu tuuti bi booy bu tuuti bi ba bi ma ko xamee et après j'ai découvert lu tax mu munoon di def penc mi guichet fermé mhm. te amagul woon album nit ñi xamaguñ ko woon mais j'avais compris liggéey yoon na basam muy Médina ba euh, fexe ba am publique bu mu mën a palper mhm. ñooñu di ko fekk si ci jowam et mhm. c'est important mais léegi fu ñu toll waaw fu ñu toll fi mu ne nii nag ñu ngi waajal euh, penc mi ñu ngi koy waajalaat le 6 bii nii. le 6 waaw 6 bi samedi bi incha allah. Mm-hmm. di xaar victoire Lions yi rek incha allah bu ñu gagné rek. Mm-hmm. xam naa spécial soirée maillot Sénégal lañ koy def. Mm-hmm. spécial maillot Sénégal Sénégal waaw comme fi ne nii moom kan bi moo xew. yal na ñu gagné rek yal ñu am ndam rek. mais mais kañ la album bi ñëw. album bi génne naa ñaari album non non fi mu ne album international maa ngi xaar Mbàkke fi mu ne nii. Ah. moom la ñu bien sûr daa ngi bi mbër mu mag de international. no sûr bien sûr. wolof bi kese dina doy foofu. non non visé non man duma man ci lépp laay way. man lépp laay. da nga wax français. bien sûr wax wax anglais. wax bambara bambara couleur. bam ci bambara. ñëwal ci bambara ñëw na ci bambara. فقد سمى جنبي سرى يسر بنا ويبالك جرا يا متلي يا بغاك كيسين كدوما أغاقين يجيزين أغاقين sëñ Ndao ba baaral boobu nga baaral moom lu mu doon moom. léegi ñu gisoon la ci incroyable euh, l'Afrique a un incroyable talent. Mmh, waaw macha allah nga te nga prouvé foofu. waaw wane foofu boobu dañ demoon représenté Sénégal mag sama jigéen sama xarit Souadou Diaw. waaw mmh. waaw maa ngi moom ñoo demoon représenté Sénégal ñu dem ba demi-finale moom mu dem ba finale. Mm. maa ko jox lenge ne ko demal. ne <laughs> waaw waaw. ah parce que mooy jigéen. mooy jigéen waaw te jigéen da nga koy sargal da nga koy mm. sagal. Mm-hmm. waaw te macha allah mu mën ni muy def. malal est-ce mm. muy ku baax nga ne. est-ce que xam nga ni mag ñi kum ci imité. nga ni moom mooy wax. moom mi wax ah, ko mu def xaar mbay. chanté. na woy xaar mbay. demal demal demal demal fu la neex mais bul wax kaaroo yàlla de. <laughs> Eh, finaaloo yàlla. El Hadj. ñëwal final oo oh yàlla. isaan ne leen final oo. final oo final. waaw waaw waaw. yàlla bu leen. am nga biri am nga biri am nga biri. wetu ma jigéen baar. ndeysaan. ma jigéen baar. ñu ngi naanal sunu gane sunu doom yi ak sunu sët yi yàlla leen yàlla may ndam non yi auditeurs yi laa yi bi dama koy maye nii laa koy maye ni mu nekkee nii dix quinze vingt cinq trente cinquante bi ba quarante manqué na xama mootali ko xam eh, maa ko kii woon xaar leen <laughs> bu leen kii oui dama ko écho woon voilà cinquante dama ko écho woon dama ko écho woon pour yoxosu leen cinquante buy <laughs> <laughs> woote leen buy woote leen moo jox leen fukki junni fukki junni woote leen gaaw waay dama ko ekoon ni mun naa ko ba pare fan la nekkoon tamit dama ko demal laxasaayu ni doy na waar mais mais dëgër mooy Medina mi noonu mais mais yow yaa ngi wax appel international euh, affaire internationale. album international mm. ci ci ban circuit da nga bëgg jaar ci Mbàkke. waaw non wala da ci label label tubaab bi. non bien sûr comme sunu label macha allah man rek maa ci sénégalais. Ah. ñeneen ñëpp ay Mbàkke yorul benn ski. non non man kese maa ci sénégalais. naa featuring ak G Martins ak Akim. Hakim Mike bien sûr Hakim ah, moo way ratatatere the boys ah, kay ma wax la nag man danga may wax ay Gian Asamoah ay Jordan ay Jordan ay yooyu nga may wax Hakim G Martin ci samit moo def ak sunu papa Youssou Ndour featuring def ak DJ Arafat featuring oh na na na na na na na waaw waaw waaw maa ngi moom def nañ benn featuring te def nañ clip bi Paris mm. ak Dakar incha allah dina génn bientôt. am nga doon tourné clip waaw Paris sur Dakar pare nañ ko incha allah ñuy déglu Mbàkke rek mu. ok léegi El Hadj quelle est ta relation avec Youssou Ndour. parce que dañuy gis ay da ngay def première papa ba ba pare euh, première partie si ses yëpp. waaw damay joué loolu yëpp Mbàkke la. Mm. Mm. waaw moom tamit muy sama papa. Youssou Ndour bokk naa ci ñi mu njëkk may xaalis sur scène. ah Douta Seck. battre la culture mu battre ma xaalis. ak a jafe loolu. Ah. boobu Bamba Fall a ngi taxaw ñëpp a ngi taxaw. yéen a bokk seen Medina la baat vraiment. Mhm. te loolu. lu rëy la ci yow mais moom bëgg naa balaa nga dem nga may fukki junni parce que jox naa la un million bëgg naa nga may ci fukki y' a pas de damay maye kay. léegi ku woote da ngeen woote ci numéro yi. léegi léegi da nga dundee yaakaar ci un million yi teg ko ci buuteel <laughs> parce que ñi may ñu xaalis un ko eh, ko may nii. un million. kon El Hadj mais ñaaree ni maa ngi yow dañoo yaay. kii maa ngi yow maa ngi yow tey ñooy ànd. <laughs> nii kañ moom. <laughs> léegi pour gagner un million bi da ngeen woote si eh, numéro eh. yooyu affiché. Ah. sama wàll. maa la ko jox ci plateau officiel. <laughs> toppal ma. na na biir yow. gis naa tamit euh, que fan yi euh, il a deux ou trois jours euh, woy bi nga woy sànq muy jubilé yaa ngi woon également ci tournage clip bi. boobu tamit pare nañ ko tonton Ibou Ndour moo ko def. tonton Ibou moo ko def. lu tax nga choisir euh, moment bi parce que son boobu du bu bees. bi xam nga ak euh, ndeysaan sunu jigéen boobu ñu faatoon muy. Binta Camara Binta Camara macha allah nee na ko yàlla yërëm moo taxoon tamit ñu créé waale morceau boobu pour képp kuy toroxal jigéen rek nga gis sa bopp te réglé. Mhm. koy boobu doo ko woy jigéen mooy suñu. saay saaye. jigéen. duma ko toroxal moom jigéen la ah yërëma ko jigéen jigéen suturaal ko yow la bëggoon yow rek ko safoon yow rek la woon nga xëy suma bàyyi ko mu toog di jooy jooyu xol xaru rek ku dese woon mu xalaataat xam ni jaru ko waaye chéri yow laa miin ganam xale bii de bii de waaw la ko nga takk ko xam nga nag way nga nag ku jara way mooy femme waaw nga femme te femme ci kaw suuf bu ñuy seet maa nga sunu yàlla bi femme mooy mànga suñu yàlla. lu mu bokkul baaxul. doy caaxaan. Mm-hmm. waaw suñu borom allah tëggul neexul. xoolal li muy nekk ingénieur ingénieur yëpp. alaaji fay loo fa lay def affaire bi. femme mooy jur waliyu. femme mooy jur président. Mm-hmm. femme mooy jur journaliste. Mm-hmm. jur chanteur. ah femme daal tubarkaar daal femme daal vraiment mun daal vraiment les femmes daal je vous aime daal man. mun daal j'aime les femmes daal. vraiment vraiment daal ah. <laughs> no am na non xam nga am na usines yuy defar am na defar am na usines yuy defar ay bonbon suukar. Hmm? Hmm? waaw. Hmm? waaw dëgg la. waaw waaw léegi nag tey la guddi àjjuma. waaw du nu jàpp booy Medina fii te Medina nu xam leen seen ay ay kuréel ma fay dox guddi di dégg. di gis léeg ngay def ay fii doo laal fii moom ku fi ñëw moom laxasaayu leen rasulillahi laxasaayu leen ma yéen di mbay mu sikkër mu du ajuma tuuti alamin Sénégal ca kaw Sénégal ca kaw masalam bur yàlla yàlla baba njool ma kabaam alaaji fal njëriñu réew mi bismillahi ma wax lillahi rasulillahi xëyli dama dama bëgg dama bëggul xam nga lu <laughs> maanaam ci sikar si dañ coo dañ cee yàgg def dañoo mm. yàgg sikar ba pare am na ñu ñuy clash am na ñu ñu ciy bëgg am na ñu naan lu am na ñoo ah. xam ne lu tax ñu naan ela eh lu tax nga jóge ci sikar dem ci musique xam nga ay jamono xanaa noonu gisuñu Youssou Ndour mm. way deel teew ba mu neex ko mu tekka dem way yaa salaam <laughs> dellu si waat <laughs> chacun fait ce qu'il ci réew mi. man yow laa bëgg. ah Youssou mooy sa papa. toppal ci tànkam. dégg foofu de. fait ce qu'il moo tax kuma laaj ma ne la variété laay def. si mm-hmm. variété rek nit nit. par exemple ma ñëw ci Moustapha Mbaye. waaw ne ko. nama ma masul wuju fi kalnasi wa baba ay jot ban leen gën. يسمع أمة والدعاء bu ma neexee ma ñëw si Cheikh Diop Mbaye. Cheikh Diop Mbaye wa ñëw Amadou borom jaam mu jëwoote ah, ëpp ndongo mm. gën a gën le ah, gën a siiw le mm. lam bi diine xaat di manan Bamba doomi Maam Jaara ndeysaan eh eh eh eh ña fa taxawoon dina seen borom te ñagal seen morom barki Rasulullah léegi am na ku ne ci tigo bi ci tigo bi allo xamoo ne kii vraiment yow mi yi lay wër allo de ndeysaan ñàkk oh. sens bi lay commencé. allo. fu fu juróom-ñetti junni ak ñaar yi ma boo xoot. bëgg koo yóbbu bëgg a may. ngay doo wuyu. du jëlal keneen. allo. hello tey nag bëri na ñu daw. fukki junni yi man la bëgg ngeen jox ko. du ngeen xam nit. kenn nekkul xam nga man nii fàtte woon nag sama enveloppe bii nga bokk nag yow. Eh, eh, fii laa ko teg de pourtant dama ko doon kii rek de. yow da def ay déviation. Ah. est-ce que du yaa ma jàngal tamit. muy leen kii wax ak yéen allo oui. allo. oui sëñ bi na def. maa ngi fi. noo tudd ak fooy woote. maa ngi woote Zac euh, Mbao. Zac Mbao bi nan la. Diatta Diatta. Hmm. Diatta. waaw. ah suba Sénégal day joué loo xam ci match bi. waaw ah, Sénégal match bi yaakaar naa moom. Hmm. Hmm. war nañu doo deux deux deux zéro deux zéro. ñëpp 2-0 bi daal de. Ah, gis naa ko de yàlla bu cet dugg. Ah, war ka tompol ko tompol ko. waa léegi yow am nga mayo. non amul mayo de. yow de kon nga mayo. merci daal na ma nga ca Touba Sandaga ndox yor nga yor nga foo bind numéro. <laughs> waxuma nga woo ko de. yow man maa la jox mayo bi la Baye Zal jox. léegi soo gisee keneen ko bëgg maye da nga ko jox numéro Baye moo mu woo Baye Sall Baye Sall jox ko maye dégg nga. Uh-huh. waxal 77. 77. 950. pardon pardon. 50 00 77. 950. 950. 50 waat. 53. 00. 50 50. 50. dégg nga li ma wax. zero zero neuf cent cinquante. numéro bu baax baa ngi noonu numéro Baye Zall. ku bëgg allo rek 950. 950 50 00. teg naa ci benn bal. ah teg naa ci benn bal may naa la fukki junni. benn may bu jóge ci Baye Zall. teg ci benn bal xanaa léegi nag ñaari bal yaa ngi nii alma. alma fi léegi yow. waaw. yow bal yi boo ci bëgg bu góor bu jigéen. <laughs> boo joxe baax na. parce que bu dee bu jigéen bi dafay nekk une balle <laughs> bu dee bu góor ñu ne un ballon du faut dem bay jàng nañ tuuti nag. waaw waaw dem na nag ba CM2. boo ci bëgg jox ko un ballon. bu jigéen bi baax na. waaw ñaw <laughs> kon may naa la une balle. <laughs> une balle mu dee. bul coupé bul coupé. sama yëf la nga may nii sama yëf la nga may nii. bul coupé ah. sama yëf nga ko may nii juste. déet subhanallah. ah bal bi laa ko may may bal la ko may une balle. une yor di ci fo sànq ba tey ngeen bëgg ko may moom moom. may sa bal bi rek moo gën a wóor. waaw yow mi espiritor ji nga de. rombaar fii réew mi toll booy wax nay leer. gaa yaa ngi ci réseaux sociaux yi di waxaat. réseaux sociaux yi kat boo fa demee yaa fa sa bopp. ndax man bal bi laa wax nga bëgg a jël wax nga aggravé. te man jaañ xajuma kër yaa ma ci tax. te ma sant ga. xajuma ko daal <laughs> léegi nag suba numéro yaa ngi noonu. Uh-huh. et eh, yow puusal puusal sama kanam yow ma gis numéro yi voilà. 88 628. 22 22 22. 88 628 65. 65 ngeen bës 2. Eva mu ngi foofu di leen xaar bu ngeen ñëwee mu dalal leen ci jàmm ngeen joxe seen pronostic su ngeen pronostiqué ba jàpp nu jël seen numéro coppati ko may leen ñaar fukki junni may leen mayo may leen pistigo cash may leen meew l'écran ak lan te di ngeen am chance te di ngeen am chance seen numéro. bokk ci tirage 1 million yi. Uh-huh. kon woote leen foofu ci marché Sénégal bi suba ngeen def seen ay bagages pour mën a dàq seen wërsëg foofu. Mm, suba dañ leen aussi dégtal ñaari demi ñaari huit waa match yëpp. si RFM à partir de 15h45. Maroc Bénin après Ouganda Sénégal ñaar ñi gagné ñaari match yi ñooy daje quart de finale. Oh. nun suñu dooree bene dóor nu def Sénégal bene nun suñu dóoree Maroc dóor ñu def ñu def Sénégal Maroc Maroc. Ah. tu n'es pas juste tu n'es pas juste. mani yow kii fu mu def. <laughs> kii dafa nekk ci ay jafe-jafe. léegi laajal leen ma El Hadj fan la def. El Hadj dafa am ay il est parti. El mi ngi ñëw dafa am ay problème yu muy réglé. il est parti ndeysaan ba jëbi tubarkalla. donc <laughs> def daal di doy nit non ñun ñëpp dee danga neex. léegi yow demoon nga booru géej. waa cette femme yi foofu ak mm-hmm. pêcheurs yi. waaw loo jëlee booru géej. ah dem naa fa de seeti leen. waaw waxtaan ak ñoom. laaj leen ak yooyu. parce que jigéen yi dañuy teel a yeewu malal dem géej. uti lu ñu mm-hmm. yóbbu si njaboot yi seen kër yi mm-hmm. affaire yooyu. léegi ma laaj leen est-ce Sénégal suy joué dinañ bàyyi li ñuy def yëpp. pour mën a seetaan ak yooyu est-ce que dinañ am temps bi. ma laaj tamit benn mool. comme mi ngi doon doog a géej jóge ci géej bi ma ne ko est-ce que moom heure yi match yi di am du ko fekk muy liggéey wala dina ko seetaan mm-hmm. mu ne moom dina am temps seetaan wala muy seetaan résumé yi nañ seetaan ñu seetaan femme yi nekk ci géej gi luñ moo luñ moo wax Sénégal Sénégal buy football. Uh-huh. dañ ko war a seetaan ndax ñun ay sénégalais lañ. ok kon yeneen équipe yi suñu football doo leen seetaan Sénégal ok Sénégal di football moom damay lu doon def bàyyi naa ko damay seetaan. ok da ngeen bàyyi jaay beeg yooyu yëpp dem daal. yëpp la ñuy bàyyi dem seetaan ah. supporté. ëpp damay dem géej ñu ngi daw ay côté 17h 20h yooyu maa ngi koy seetaan. jaay bi kenn du jaay. Ah. ñëpp ay ayu ji si kaw. ah ok seetaan match ba match bi dee ñu doog a ñëw liggéey li war a liggéey. équipe bi daal li ma na gën góor góorgóorlu xool bu baax ñu muy dugal ak ñu mu dul dugal dégg nga de léegi après mais ñoom it bu ñuy joué nañuy bu ñu xeeb ki ñuy joué bu ñu xeeb ñi ñuy joué nañ jóg si saay zaayir ak baatin dañ war a góorgóorlu yokk seen entraînement mhm. defar ba mu baax ndax ñun bu ñuy football dañuy sonn na ndik dañuy supporter supporter mhm. ba tas moo tax ñoom dañu war a gën a góorgóorlu seen entraîneur bi tamit war naa gën a góorgóorlu waaw Sénégal am nañ ay joueurs yu am nañ ay footballkat yu baax am nañ encadrement bu baax mais nag lii la xam nga ne lii xale war nañ ko dégg la yow mais ni ni dañuy aju ci kaw seen jaay beeg yëpp la ñuy bàyyi bàyyi jën yaag yëpp yéeg gis nga biisu jël jël sër takk ci ci kii bi kii yërnu naa ah eh eh eh. léegi laaj leen ma El booy foo demoon. waaw enveloppe ba laa demoon dénkaan. enveloppe ba million yi. <laughs> moom nga demoon dénk sa gaay ci kaw. mën ngeen changer vi parce que comme émission bi dafa bari ambiance trop mën ngeen changer avis ne ma El Hadj indi enveloppe. ma teel ko enveloppe bu demoon ak yow ba Medina dañ koy jëli parce que yow moom moo enveloppe bi. ku ko moom bugguma nga def ci sa kan enveloppe bi borom numéro yi ñoo ko moom. ah ok maa ah, ah, ah. ko ko may nag. waaw jël nga boobu risque. man maa ko waaw acca kon jaay nga. xaar Youssou dina ma jox ko. xaar moom ko ko. Oh. léegi yow da nga war a da nga war a laal penc mi le 6. waaw le 6 am na beneen gone. Momo euh, moo Momo Dieng moom. ma nga jëm si ses. si ses waaw dégg nga. Mhm. foofu kon na. na ñaar yëpp neex. non mais man damay. moom fay la njëkkee ci moom moo lay. naa dem ci moomoo. da ngay dem ci moomoo ba pare. bien soo ko ñëw damay doogay dem. waaw waaw xam nga nag génération bi ma la luy seen chance. Hmm. ñoom ñëpp ay xarit lañu. tout le temps da nga leen di gis sur les réseaux sociaux. Hmm. ñu nekkandoo xam nga da nga leen di gis ay appel vidéo WhatsApp ñoom hmm. groupé da ngay ree ba sonn donc c'est des amis et c'est important. parce que musique loolu la bu ñuy musique ay concurrent lañ mais concurrence bu loyale. bu ñu paree ñoo maase génération. ñooy ànd kii Tarba Mbaye la gën a sonal ci àdduna. kooku tam mu ñëw xale boobu. la ko. sama doom la waaw léegi nu mu xool xool moomu lu mu nar lu mu nar si ko xool te ñëw balaa muy dem. après la sortie explosive de son nouvel album les mélomanes ont dit oui. chaque jour de la soirée, les points de vente sont saturés. Normal, c'est le grand rendez-vous du Cristiano Ronaldo et l'Endobin Groove sur l'esplanade du 6 ce samedi juillet sous le parrainage de Monsieur Abdoulaye Diop, ministre de la Culture, Monsieur Cheikh Issa DG ADM, Monsieur Abdoulaye Diop, SMD Grand Yoff, Maître Madi Kenyon, Monsieur Birandour, DG Groupe Futur Média, Monsieur Mamboy Diaw, DG Impôts et Domaines, Jaina Baba, Maison des Anges, Monsieur Biran opérateur économique, Monsieur Amadou Gueye Ati, maire de la commune

et le seul et unique destination success. ah ah ah am nga gan am nga gan. am nga gan. ne allo allo. allo. allo. Ah, kilifa gi noo ngi ziar. ah waaw Malal maa ngi lay nuyu bu baax a baax. tabarkalla kontaan naa ci yow. ah man daal sama xol sedd na ci yéen vraiment parce que tey boo leen woowee El Hadj Keita foofu. Medina hmm. bi pay am fierté ndax doomu Medina la. waaw donc je tenais à vous appeler Coro moom ah, sama rakk bopp la. dëgg la donc sama jarbaat la sama rakk la yow maa ngi aussi ma respecté la trop ci li ngay def. tubarkalla vraiment li nga koy defee neex Sénégal gépp. tubarkalla ñu nuyu ki den ak Coro aussi. ajaa ah, daal boo gisee ngeen woo. Hmm. dafa seddal xolu Medina yëpp. Hmm. te fii sunu jaaroon ci Medina rek ci tànk yooyu la nekk xale bi yaroon na. am na fayda xam ne li mu bëgg di jaaxaanewul boppam. il fallait ma seede loolu. wala ne Medina gépp daal la fi nekkal te ñun ñëpp dañu. Bamba Bamba Bamba Bamba. waaw Xaadim Rasul Bamba. Bamba Bamba Bamba Bamba. waaw Xaadim Rasul Bamba. Bamba Bamba Bamba Bamba. c'était le maire. monsieur le maire xam nga nag lii dafa foor na. Mm-hmm. ndax soo nekkee ci gox doon ndaw di dox sa yoon. Mm-hmm. nu woo nga toog fii le premier magistrat de la ville woote. Mm-hmm. pour waxal la lii kon yow sas nanu la. sas nanu la waaye sas bi attan nga ko. te Médina am nañu ceew yaakaar. te Médina jiite nanu la. te Médina faxas salanu la. dinañ la boot. dina la rogamti mm. ndax nun Médina nag am nañu télé mm. am nañu rajo am nañu site internet mm. am nañu journal am nañu ay waxkat yoo xam ni ils sont bien formés pour bien parler may kontaan ci moom <laughs> monsieur le maire Bamba Fall lépp lu ma xewle Médina lépp lépp lu may soxla Médina moom da ci taxaw te macha allah mi ngi jàppale tamit jeunesse Médina yëpp mm-hmm. du man kese mais ñëpp lay jàppale ñëpp la yemale mais maag moom dafa am lu ñu. dafa particulier dafa particulier parce que papa doom la. mu def ma comme doomam bi mu jur. Doudou mm-hmm. Doudou Fall. Mm-hmm. maag moom ñoom maase. mais sama xarit la. Mm-hmm. sama lépp la bamba bëggul may bëggul sama bët taa daal. tubarkal waaw bëggul sama monsieur le maire daal li lay wax mooy na pavé yi continuer. ndax léegi amatul ay amatul ay parking sauvage ci Médina. am na parking payant. lampe yi tàkk na dëkk bi set na. yal na sa jàmm yàgg Fall. lii de man maa ko wax Mbaye. waaw Fall Fall dafa yàgg. waaw man de maa ko di bëggee nag Youssou Diall Youssou Diall mi ngi tamit mi ngi Égypte mi ngi. dégg baax. Youssou Diall. xam nga man léeg-léeg man xam nga léeg-léeg damay damay nekk géwal damay tëlli. ñëwal keneen si la Matar si la xarijo ngone mi ngi ayu Diall. Mm. Youssou Diall baayam. dudu jal cerno jal cerno jal alfa jal muy baayam amina maram awaayu su jal yaaka moom yaaka moom ne waaw waaw waaw di sama waa wax ci làmb ji ipp ngaari ki ne fere moom day bëgg day bëgg ma koy way di ko gëdd di ko gëdd Youssou Diall muy jàkkaarloog yow ah, muy jàkkaarloog ngeen di ngeen di defante waaw moom ndooy baax laay laay la la ñaar ñooñu fu Elaj Keita yegg jox ma ñoo ma fa yeggal. Paate Ndoy ba Yuusu Jal amuma seen fay. tubarkalla waaw tubarkalla kon. fii la ñu daal di faranku laay affaire mais am na benn affaire bu des bu pay faal parce que tey dafa buuxuuxlu. waaw tey ba boor yële. est-ce que demul raamul. Ah, dafa <laughs> côté yële. ah ba moom dañ ko dañ ko excuser suba am na. suba bu Sénégal gagné dinaa may un million cinq cent. incha allah bu soobee borom. nanu ñaanal réew mi. nunu ñaanal réew mi waaw brique ak genn wàll un million cinq cent lay may suba Sénégal day football ñi ñi def guddi ajjuma nanu guddi ajjuma ci gaynde yi ñaanal leen ndam ñii xëy dem fajar juma nanu xëy fajar ñaanal gaynde ndam. waa ji nee na bu leen ñaanal gaynde yi gaynde yaa nga. parce que kon équipe Sénégal yi <laughs> ñi nga xam ni tam dañuy dem juma. suñu demee juma nañu def ay dog ñaanal équipe nationale mhm. ñu booloo doon benn doon benn mm. say puus suñu ay doom suñu ay rakk pour nu am ndam mhm. réew mi dem quart de mhm. bu nu paree si quart de nu booloo bi benn say dem demi finale bu nu jógee foofu ñu ni coow ah. dem finale ah.